Euh, xam naa bu loolu weesoo euh, fan yi yëpp maa ngi bëggoon a wax ci wax jii nii waaye xawoon na tënk moo tax affaire saagante yi ak euh, wala affaire saaga yi nga xamante ne am na ñeen ñu ko bëgg tuddee saagante bëgg a transformer yóbbu ko feneen déglu naa vidéo bi nga xamante ne Oustaz Makhtar Sarr moom moo ko partagé. di léegi nag man ça me fait ni chaud ni froid li Ahmed loo wax nii ndax li ma jàpp mooy euh, bu dee daf ne association islamique yi amul kenn ku ci kii kilifa diine yi kenn rafetluwul saaga bi xaddil nazar ci li ko jiitu ñi demoon ci rajo ba di ko jéem a défendre naan ay saagante moo am waaye saaga amul dafa am kuñ saaga mu fayu déglu nañ audio yi ci sëñ Modou Kama def loolu doy na sëkk ak barke sëñ Modou Kama bàyyiwul dara waaye di wax ne rek Ahmed Lo mii di jéem a joxe leçon de morale fii tey docteur Ahmed Lo moom moo njëkkee saaga yi maanaam kuy saaga tey ci Sénégal képp kuy saaga Baye Niass walla Cheikh Ahmadou Bamba wala Sidi Hadji Malick benn mag ci magu Sénégal yi Cheikh Omarul Fouti nguur si la ko jàngal nàmpal la ci mooy Ahmed Lo mënoo yar ay kuy bañ màgg nag dem di mbëkkante di mbëkk ñeneen di kii nga taxaw naan non bépp kuy buy mbëkk kenn d'accordu ci nangam ak nangam di jéem a joxe leçon de morale di diisal baat ak yu kenn xamul. téere bi nga bind yow yow docteur Ahmed Lo téere bi nga bind boo ci yàkkutoon magu senegal yi liñ leen ci yàkk konoon ba bufte bi di wal. amul benn doomu Sénégal bu ñemee taxaw ci réseau sociaux yi di wa yekk doom di yekk magu Sénégal yi lim leen di yekk nii ndax man déglu naa benn audio boo wax ci sa benn fatwa nga naan xaw ma yaa ngi jox nit ñi defi ñii di wax nii fii ba seen dundu jeex ñooñu de tam seen doom yi buñ ñëwee ba seen dundu jeex nañ la génneel fenn foo tuddee menn mag saaga ko ci sa téere wala nangam ak nangam sëñ Modou Kama génneel la lam lay génneel waaye man def naa benn vidéo jamono la ci ginnaaw ci sa téere boobu di taqdisul ashxaas foo jëlee waxu Baay Ñas jëlee ci sirul akbar jëlee ci daayiratu mataalib dagg monte makiyage ba wër-wërloo xulaasatan nga ne Baay dafa gëmoon waxdatul wujud dafa gëmoon ittihaad dafa gëmoon xulul loolu du saaga mais maani saaga la maanaam loolu moo gën a moo yées saaga xam nga nag yéen dangeen ngeen a foog ni seen problème mooy da ngeen a foog ni yéen a gën a muus nit ñi gën a yéen yaatu nit ay xel gis ngeen seen doctorat yi ngeen ay xottu suukar moo ko ne maanaam am doctorat taxu ngeen ëpp nit ñi xel ñu leen ëpp doctorat ñoo fi nekk ñu ñu am agrégation ñoo fi nekk ñu am mustawa doctorat ñoo fi nekk donc bu leen jàpp ne mën ngeen a nax nit ñi mënul leen na saaga nit ñi min war a ay sitaar ba pare taxaw génn naan kan moo saaga foofu génn nañ ma génneel fu ma saaga maanaam koo tuumaal xéeféer wala nga tuumaal ko shirk wala nga tuumaal ko bidaa wala nga tuumaal ko ilhaad wala ittihaad wala xulul loolu moom moo ëpp fuuf moo gën a rëy fuuf moo gën a ñaaw fuuf nga di ko saaga parce que kooku da nga kaa condamné da nga kaa condamné léegi il faut être sérieux si tu es vraiment un docteur bu fekkee yow docteur nga comme ni nga koy waxee bu fekkee murshid nga bu fekkee da nekk kilifa il faut être sérieux taxawal nga wax sénégalais yi carrément que ne saaga yi nit ñi di saaga man maa bind ci sama téere ne Baye Niass dafa gëmoon wahdatul wujud dafa gëmoon ittihaad dafa gëmoon xulul te loolu képp ku ko gëm xéeféer la man maa bind ci sama téere ne Cheikh Omar amul mujj rafet dafa gëmoon nangam dafa gëmoon nangam man maa bind ci sama téere ne Cheikh Tidiane dafa gëmoon wahdatul wujud te loolu képp sama téere ne sufiyanke yi lu xaram amul ci ñoom mën nañoo takk seen ndey mën nañoo takk seen baay mën nañoo takk seen mag mën nañoo takk seen rek man maa bind ci sama téere ne sufiyanke yi boo leen gisee ñu toog di wasifa wala ñu toog di zikar juma wala ñu toog di jàng xasida dañuy mel ni ay xaj yuy xëccoo médd boo waxee loolu ba pare nga ne nag conclusion mooy xale yi di saaga xale yi yëpp mag ñi ci man lañ ko jàngee waaye maa ngi tuub maa ngi jéggalu ci loolu et à partir d'aujourd'hui man débarrassé wu naa ci loolu dégagé naa sama responsabilité boo defee loolu ci ngay nekk un homme vraiment sérieux mais taxaw fii micro yi tiim la nga diisal baat bay mel ni wa inna an inna ankara aswaati la ximaar taxaw naan ay xale yuy saaga benn kilifa du ko rafetlu kilifa diine li nga bind ndax dangaa mës a gis benn kilifa ci Sénégal mu bind ko njëkkoo fee bind docteur Ahmed Lo njëkkoo fee bind këru diine yépp am na ñu la fa njëkk a bind boo jëlee Medina Baye am na ñu la fa njëkk a bind téeméeri junne yoon Ahmed doom Pape Cheikh moo la njëkk a bind téeméeri junne ñoom Baba Lamine doomi Baye ñoo la njëkk a bind Cheikh Mahi Cissé moo la njëkk bind boo demee Touba da nga fekk ñu la njëkk a bind téeméeri junne yoon Tiwaawan da nga fekk ñu la fa njëkk a bind téeméeri junne yoon maanaam kon yow njëkkee woo fi taalif léegi pourquoi ñoom ñooñ ñëpp jamono biñ taalifee xeebante beeg xasante beeg yuuxuwante bi amul ba bi nga taalifee ci lay doog a pourquoi gis nga gis nga bokk na ci li ma bëggoon a wax tey ci conférence bi maanaam bokk na ci li indi l'islam deltu ginnaaw mooy naxasaale maanaam da ngay gis góom boo war a faj doo ko faj nga ko fay romb dem di xasan bopp maanaam da ngay am góom ci tànk au lieu que nga faj ko nit dafay am cancer ci tànk au lieu mu faj ko mu dem di xasan bopp bi di naan ay garab bopp bi métti wala di diw shampoing ci boppam bi bu tànk bi nëbee dañ koy dagg sànni. jullit ñi loolu daf leen daal dañuy gis le main problème maanaam point point problème bi lañuy gis au lieu fa ñuy jà ñu jàpp fa xëcc fa wëñ wi wëñ wi lëjee mu lijjantiku. duñ ko def dañuy dem taxaw naan puso bi dafa dëng puso bi dafa jub puso bi dafa nii saaga yii moo fi am saagante amu fi saaga moo fi am saagante amu fi man jégalu ci audio gudd boobu man man mii lu nekk yàq nañ ma ko fi lu nekk yàq nañ ma ko fi ñi ma fi yàq noonu wax yu bon yooyu mësuma leen a delloo un dixième liñ may wax un dixième bi li ñu ma mos ma leen ko delloo man mu xeebu mii rek tudd nañ fi sama baay tudd nañ fi sama ndey tudd nañ fi samay maam tudd nañ lu nekk yàq nañ ma ko léegi audio bu ma ko génne woon ndax dañuy wax ne kon saagante moo am dama leen saaga ñu saaga ma te loolu al kullu shahid képp képp ku nekk fii ci shahid la ci loolu keneen ak keneen noonu ñoom ñoo am seenu réewande guñ nàmpee ci yow am seen arrogance démesurée buñ nàmpee ci yow yow ku dégg ni ngay waxee xam ne da nga am benn arrogance démesurée parce que di wax mel ni yàlla buy wàcc ak yàlla bu ndaw buy buy ci maanaam di bind jàpp ne ñi ngay bind réew mi quatorze millions wala quinze millions de sénégalais ñëpp ay jaxala lañ yow yaay boroom xam-xam bi yow yaay docteur bi yow yaa am association islamique yi cette arrogance démesurée boobu ñu royee ci yow moom la ñuy jàppee kenn ku nekk ne ñoom ñoo ko gën

sëñ Touba dafa waxoon ne man lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin wala afna al funun wala inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin wala afna al funun nit ki nekk ci télé di liggéey wala dem naan jàngi nga ñëw taxul nga am saqafa taxul nga nek intellectuel bu honnête bu fekkee ay jox la invité du roi yi moo tax ñu corrompre la nga ñëw taxaw bëgg fonto nit ñi di wane ne ay yow da nga am ki yow amoo perperlo yenn wax yi waxu naafeq la bu fekkee saagante moo am dañoo nekk ci groupe yi di saagante génneel audio yi ñu saaga génneel audio yi ñu leen bañ fayu usmaan Ba ban nit moo ko saaga ba muy fayu fayu yu ñaaw yooyu Alpha Alpha Ba ak Fadel laanatullahi alayhima biñ fiy saaga sëñ Fallou ak sëñ Babacar si lan la leen taalibe sëñ Fallou ak sëñ Babacar def. Euh, allazi tawalla kibrahu minhum Moustapha Cissé jamono yam daan xëy chaque fajar chaque fajar mu indi benn thème ni ko jëbb ci penc mi ne lii mooy thème bi tey ndaraan ngaa ngi ñëw dañuy dajji lii la ñuy dajji tey kan moo leen doon saaga jamono yooyu ba ñuy indi loolu kan moo ubbi woon seen téere sëriñ si ba ñuy def loolu ñoom Murtada Gueye laanatullahi alayhi bi mu fi bindee ci Cheikh Tidiane wax yu ñaaw yi sëñ Modou Kamal lii keroog kan moo ko man gis naa bind yooyu gis naa bind yooyu am na benn boo xamante naa xalifa mbuub la doon wax xalifa boobu la doon wax ak xalifa waxu ko dara lu ñaaw mu bind wax yu bon yooyu noonu kan moo ko saaga ba mu bind loolu waxalu ma jaran ñoom ñëpp ibnu taymiya bi muy bind lu bon li mu bind ci nit ñi saaga ñoom ibnu arabil xaatimi kan moo ko saaga ba muy bind loolu ibnu abdul wahab bi muy takfir sufiyanke yi di takfir diw di takfir diw di xaraamal nangam di daganal dara ci diw kan moo ko saaga ba muy bind loolu maanaam il faut ngeen il faut il faut que vous soyez un peu sérieux et vous ayez un peu de modestie xam ne nit ñi duñu ay dof taxaw ci rajo bi ñu may la temps d'antenne nga taxaw di wax lu la neex bëggal lëri sénégalais yi bu ngeen nëpp nëppalee problème bi lu ko raw mooy juddu ci kanam parce que taqdiisul ashxaas daf fee dugg si woon ngeen nëpp nëppal ko wax yi commencé ci whatsapp bi ngeen nëpp nëppal ko saaga yi commencé léegi yéen a koy nëpp nëppal nañ leen dem nañ leen dem képp ku taxaw ne saagante moo am na génne ojo yañ leen saaga ba ñuy fayu bu fekkee mënu kaa génne na àdduna bi yëpp xam ne kooku waxul dëgg duwul waxkati dëgg te nañ nañ ko bàyyi di déglooti parce que amul honnêteté intellectuelle intellectuel bu honnête mooy kuy nangu dëgg même bu dalee ci kawam mu xam ne li njuumteem la man nag waxoon naa fi benn wax te yàgg naa di ko wax képp ku ne wahabisme wahabisme ak jàmm mën nañoo nekk mooy ne danga wax ne diwlin ak ndox mën nañoo jaxasoo billahi allazi la ilaha illa laa wax wax ji nañ dem nañ dem fii ak un siècle ci kanam fa satazkuruna ma aqulu lakum ab wahabiste ab wahabiste wala aqida wahabisme fépp fu nekk ci kawnu bi dafay yag wala mu gaaw dafay yeex wala mu tembere waaye bis dana ñëw jàmm dina fa jeex parce que yàlla nim leen mooñaalee la ñoo dund ak jàmm seen aqida biñ leen nàndal mënta dëppoo jàmm sànq joxe naa ci ay exemple ci conférence bi maanaam aqida bu lay wax ne bo bëggee dugg ci benn buntu nga dend ak benn mushrik wala nga dend ak benn yahud ak nasaraan yahud wala nasaraan nga may ko mu njëkk laa dugg yow xéeféer nga wala ab yahud jël xalimbaam di les ab ab mushrik jël xalimbaam di les nga jël ko lesal ko ko yow xéefér nga aqida yooyu noonu képp ku ko am ngeen foog ni dënn bi jàmm dina ci mën a nekk ngeen foog ne dama bi jàmm dina ci mën a nekk ba pare bu ñu ñëwee ngeen toog fi di jéem a saaga kenn d'accord ci c'est vrai que saaga kenn d'accord ci c'est vrai que ci mais kan moo ko commencé lan la la lan la la magu Sénégal yi def bi ngay bind sa tees boobu taxdisul ashxaas nee nga teesu master la xaw ma thèse licence lan la la magu Sénégal yi def ba nga bind ko yàq leen li li li leen yàq la def Baye Niass lan la def bi muy génn àdduna xëy na juddoo ko bu dee judd nga boobu commencé woo sol tubéy lim liggéeyal diine lislaam liggéeyoo ko sama am liggéeyu ko ñi dugg ci lislaam jubee ci loxoom yow jubeewuñ ci sa loxo lan la la def. nga bind sa téere tuumaal ko lu la neex bu ñu waxee nga ne Maigri moo ko bind léegi nga jàpp ne xale yi 2019 yi 2018 danañ jàng loolu kon ne di ormal Baye léegi bu ñu ñëwee saaga Baye nga taxaw ci sare ja naan da ngay joxe fatwa te saaga kenn daa te fekk yow yaa jënd sàngara si yaa leen ko jox ñu naan ko mandi Ahmed Lo yow yaa jënd sàngara si yaa leen ko jox ñi naan ko mandi saaga yii ñuy saaga yaa leen ko jàngal ñi mokkal ko di ko tegi da leen a gën a xeew rek di leen jaay xelu mag waaye li ñuy wax ci ojo yi yow lu ko yées bind nga ko ci sa téere donc am na yenn yoo xamante ne vraiment c'est pas sérieux man damaa xamul tax la moo tax Oustaz Makhtar Sarr di ko tasaareel lii di ko dugal ci seen YouTube parce que yenn yi nifaaq la jàngal nit ñi saaga bañ mokkal saaga toog di saaga nga tew taxaw naan da nga koy wéy naan kenn rafetlu saaga na ci état bi jël matukaayam na état bi bu amee lenn lu muy jël matuwaay mooy sa téere bu bon boobu taqliidu ashxaas fi fikri suufi état bi ci loolu la war a jël matuwaay ak yow mi ko bind yow mi ko bind ak li nga bind ci yow lañu war a njëkk jël matuwaay mënuñoo jàpp ñiy màndi ci mbedd mi tout simplement parce que dañoo màndi bàyyi kiy jaay sangara si ak ki donc munu ñoo japp saga saga wala kiki ki ba pare bàyyi ki nga xamantene moko jangal yoyu kep ku fi nek ibaadu rahman mutatarif téere ahmed lo bi mooy sabab bi ta nañ la japp nga wax ñu lan la la magu senegal yi def ba nga yakaleen lolu wala lan la la wa tasawuf def ba nga yakaleen lolu taxaw ne tasawuf dara baxu ci tasawuf mom dafa nek ne diine l'islam nek ni manam nekul diine l'islam mom leneen benn cocktailu yeneen diine la waaye duwul l'islam bi ngay wax loolu lan la la magu Sénégal yi def loolu lan moo ko wutale ak saaga yi Ousmane Ousmane Ousmane xaw ma naa di saaga nga jàpp ne loolu nga wax noonu gën a parce que ce saaba ça mooy ne ku dee ci loolu safara direct léegi ngir yàlla dugg safara gën a yées saaga yooyu noonu saaga yooyu ci làmmiñ la yem du taxaate mais dugg safara moom nit dafay kii nga jàpp ne loolu gën a yées tuumaal nit ñi bokkaale tuumaal nit ñi nangam tuumaal nit ñi nangam ba pare ñëw taxaw naan benn kilifa du du gis nga yabaate dafa bëri ay façon te lii ngay def nii Ahmed loo ci yabaate la bokk sénégalais da nga leen di mën a respecté mënoo ko nga bàyyi sa <tsk> ala kulli xaalin yow ak ñi lay jàppale yëpp laa ci yemale parce que man awma dara lu ma soxla ci yow soxlaw ma nga jox ma invité du roi soxla bu dee yow yaay yàlla tawal xeer boo boo yoree caabi aljana soxlaw ma ko bu dee Ahmed Lo docteur Ahmed Lo moo yor caabi aljana soxlaw ma ko bu dee yow yaay yàlla léegi nii wàcceel wàcceel weer ba jant bi ñu gis kon man du ma bokk ci ñi lay raayal sa ginnaaw wala ñu lay kii amul dara loo ma mën a defal lu may impressionné lu war a tax ma taxaw di wax lu dul dëgg taxaw ci rajo yi naan ay saagante amul nañ nañ nekk ci jàmm dafa am ñuy politiser mbir mi kenn politiser wu ko kenn politiser wu ko loolu tamit il faut mu leer amul kenn ku ci ut xaalis audio yi ñun dañoo jékki-jékki fajar teel gis audio yi ne rëng suñ kaw comme niñ toogee gis taqlisu asxaas ne bël mel ni lu jinne wala seytaane bu génnee jahannama noonu lañ gisee audio yi naan dañuy ñëw dañuy dajji dañuy ñëw kii mais weddi wuñu dalil la ñuy laaj ba xataa seen chaîne YouTube bu xalaku boobu tudd alxuraan ak sunna bu ngeen ko ubbee vidéo bu ñuy dugal seen image yi jàll avant vidéo bi di ñëw gis ñu def bidaa def karaat bëb bëb bëb def shirk def karaat tëg tëg tëg ñoom li mooy ne dañoo ñëw pour dajji bidaa te lan la ñuy tuddee bidaa mooy ñun lu luñ nekk liñ nekk nii moom la ñuy tuddee bidaa ay wasifa ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla màggal gàmmu loolu lañ tuddee bidaa kon ñoom loolu moo leen indi ci kaw suuf ñu nekk ay gendarme yàlla pour dajju ko léegi nag loolu bi kulli ma amkanahum min quwwatin dañ koy def bu laajee saaga ñi saaga bu laajee tabdi ñi tabdi bu laajee takfiir ñu takfiir bu laajee rey ñu bu laajee explosé boobu ñu explosé gis bu ñu amee doole te ki lañ jàngal loolu mooy Ahmed loo te Ahmed Lo ki ko jàngal loolu mooy ay sëriñam ibnu Abdul Wahab ibnu Baz ibnu Taymiya bu leen billaay wallaay bu dee ay gone lañ ci ay at itam duñu ay gone ci xam-xam xamu leen fi luñ xamul liiru leen fi téere buñ liirut mënu leen a ñëw di lëre sénégalais yi lépp lu ngeen taxaw lëre sénégalais ci rajo ak télé taxaw génneel nit ñi téere ak ay texte ne leen c'est faux te bu boobaa seen xiima moo ci daanu lu ko fi jar ñu naan animateur diw oustaz diw moo fi waxoon fen wu tooy wi ci Ibnu Taymiya bu ñu leen génnee liñ bind ci téere mi sa waay ne sénégalais yëpp duñ xaaxtandi ko tëfli benn base ak Ibn Abdul Wahab bu ñu leen génne liñ bind seen téere ngeen jàpp ne sénégalais ku déggati seen tur du xaxtan di ko tëfli yéen da ngeen na war a sant yàlla bi ñu leen bàyyee këfaafan ngeen am la kilo taxaw naan dañ leen saaga saaga yi tamit ñiy wax ne dafa yàgg ay ça da de longtemps ay nit ñoo ko dekkil pour am ci seen profit du dëgg du dëgg yaa dee saaga yoo xamante ne récent la li lu récent la bis si mënuñoo dund ci lu saaga chaque jour ci saaga lañ saaga mooy leen mooy seen oxygène bu ñuy nooyee kilifa yeeg kilifa yeeg taalibe yi nag ñu weex ñeeg ñu xim ñu ñuul ñi ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñi jinne yeeg nit ñi ci ñoom bu dee wahabiste nga saaga ak fen moom mooy oxygène bi ngay nooyee kon mun nañ mënuñoo bàyyi saaga c' est pas récent léegi supposons que supposons que bon c' est récent laa bëgg wax c' pas kii yàggul léegi supposons que dafa yàgg def na téeméeri at même bu defee téeméere at lan mooy tey ñi indi ko léegi nii pour atte ki nga xamante ne moo ko def firawna bi muy def mon monteem googu ak caay-caayam googu ak bi ñu ko yonent bi di nettali lu mu dee dee ñetti junne at dox na ci lu mu dee dee kon mënoon nañu wax ne loolu lu passé lu tax yonent bi duñu ko nettali ñuy bañ firawna tiru dara tey àlla moo ko nettali ci lamiñu yonentu te bi muy def caay-caayam googu ak bi ñu ko yonent di nettali ci alxuraan lu mu deeree ñetti junne at la kon foofu ngeen di làqu tamit du làquwaay ay wax ne lii dafa yàgg lii waree su kaa génnee gis nga ak mbon li yonent bi waxoon albiru laa yabla wa zanbu laa yunsa wa dayaanu laa yamut mbon moom bu doon def téeméeri siècle mbon la rek saa yoo dajeeg moom da kaa war a naqaru da kaa war a ñaawlu mbaax itam bu doon def téeméeri junne siècle mbaax la rek saa yoo dajeeg moom da nga rafetlu waaye ay toog naan li dafa yàgg waree su ko génnee dalil lu ñu amul dalil la ak ñi nga xamante ne dañoo bëggal lëre peuple sénégalais bi maa ngi jégalu damaa jógee ci tukki xaw a sonn nag waaye lii moom incha allahu taala décidé lu si waat da ngeen bàyyi sénégale yi ngeen di fontoo par A plus B sol seeni mbaxana ak seeni nàngam taxaw di mbubboo turu oustaz di toog di lëre nit ñi di leen endoctriner ci loo xam ne duwul dëgg di leen poudre aux yeux yéen ak politiciens yi ngeen di saaga yéen ak ñoom yéen a wala yéen ngeen gën leen a yées parce que yéen diine ngeen di dundee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne aalimun bi ilmihi lam yaalaman muazzabun bu qabli ubaadil wasaani koo xamante ne dafay woote woo boroom xam-xam te jëfeewul xam-xamam moom la ñuy njëkk mbugal sax balaa ñuy mbugal jaamukati xërëm yi na ngeen moytu seen bopp bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah